ñuy suivre ci SDT TV ñu ngi leen di béggewaat di leen siyaare da doon ngir gis nag waaye ñëw nañ ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi xam ngeen li fi jaaroon mooy mbas bi ñu ñaan yàlla sunu borom mu jëlee ko fi ñëwaat nañ ci làmb ah, seet si xale dañuy xoolee ndaanaan yoo xam ne làmb dafa am ci ñoom yaakaar tey maa ngi Fass Mbao bu nee Fass Mbao sa xel day dem ci Père mbay Gueye def lu ne ci làmb waaye kii ñu toogal moo doonu Mbaye Gueye ndaanaan baa ngi ni Mamor saison 2019 2020 da cee feu falaam def trois combats 3 victoires waroon a bëre nag far yàlla mbas mi waaye Mamor ini ngi ni doomu Fass Mbao bi Mamor men mi Mamor maa lay siyaar. waaw Xaadim Anta ginnaaw bu ñu sante yàlla yent bi ñoy sande sant ñaari wajur di nuyu wa fas Mbao yëpp góor ak jigen mag ak ndaw di nuyu ñi nga fi fek ni peul grand Ousmane suñu entraîneur ñiko gën nga xam si usine dole ak Ousseynou asan. Assane Sidi pap gay jelani. Jeelaani di sande wa fas Mbao ak li wër Garga wa mandala Japo Yakar. di soo raay bi di gërëm ñëpp tamit waaw di sant ñëpp ñoo la lay fay. turu Mame Mor bi lan moo waral Mame Mor ak tur bi fan la jógee. Ah, turu Mame Mor bi moom waaw yàgg na daal ci mbapat ma bëgg a di top ñoom Ousmane ñoom Pape Gueye xadaa affaire yooyu xam nga dem si tournoi di bindu Mame Mor doomu Faas xam nga Mame Mor la ma toppee daal. Mame Mor mooy sa tur dëggan wala surna. non Mame Mor doomu Faas laa tudd Xaadim Anta loo bëgg yow. ma mën a ci làmb sob gis gars yi di bëre rek ma ne damay bëre. kon doon woo ko. doon aw ma benn mbokk bu bëre man kese maay bëre waaw. kan nga dugg ci làmb. maa ngi dugg si làmb ay 2013 yooyu 2014. waaw dugg ci yi rek ñoom Ousmane ak Pape Gueye Xadaa Ousseynou ak Assane yi gars yi ñoom duggal si làmb daal. Cheikhou yàlla yi. Amadou ay jam. ay ibu fas affaire yoy dal mbak fas Mba sampion, ay champion xam nga ñoo ñoo tax ñu bëgg lamb ay Bavia xam nga. ban moment nga dem ba yegg na yow mi nak war nga mëna a nekk mbër. waaw moment bu ma duggé tournoi toj ko tournoi Moustapha ma bëre fa dem ba demi final. yakam man ak ñom sita ñom buba Fit affaire yoy yaa ngi Siteu bokk ngeen ben ben ben bis di bëre waaw. Sita mi la phénomène. waaw le phénomène de Lamsar moy lolu ñu dem ban leni ñu dem ba ñun ñeent rek des si làmb ji après làmb ji daa mujjee toj yaaxu ku nekk ñibbi. làmb ji bu toj doon di nga bëre si te su mujj. waaw mooy loolu. gaa yi bëre nañ de dañoo jàng bëre ñun dañoo jàngal bëre école de lutte les Tigres Mbaye Gueye suñu papa ñu koy nuyu au passage moo ñu jàngal bëre ak ñoom Ousmane ñii toog ñoom jam écrit boobu dinaa ci ñëw ak yow le Tigres déggoon danoon dégg écrit les Tigres les Tigres waaye danoo dem ba benn moment les Tigres gisatuñu ko amatul buzz mbëri ñi bàyyi nañ bëri ñi bàyyi ñi ñi yeneen écurie ku mel ni sang bàyyi na écurie bi. dëgg la waaw. Kara Dollé gëj nañ koo gis écurie Somone. non dëgg la gars yi bari dem nañ. xale ba Zolion. waaw Zolion waral loolu bi def benn. mais bàyyiwul bëre de Zolion bàyyiwul bëre de mu ngi entraîné de. Ama Ndaw bàyyi na làmb. Ama Ndaw bàyyiwul gars yi. Tigre bàyyi na combat kenn bàyyiwul. Ousou Bonne. kenn bàyyiwul gaa yëpp a fii. ñoom Papis Karabula ñoom ñëpp bàyyi nañ la. kii Serigne Bamba kenn bàyyiwul gaa yëpp a ngi fii nekk si jàmm xam mooy loolu dañoo amul fu ñu entraîné quoi si école bi école entraîné xam nga mais léegi école bi dañ ñoo dàq amatuñ fu ñu entraînement amuñu espace. écrit bu ndaw ngeen waaw écrit bu mos nañ jël paie de Sénégal entier mos nañ fi jël paie genn jël fi paie. yéen ñii pour daan. léegi bilan yi sax su may dégg sax du ma si dégg écrit les tigres bilan écrit yi. lam moo waxul dëgg rek mais Fass mbaaw fii ay Daouda Bakary ah ay champion ñoo fi nekk wur na Serigne Bamba c'est que lam moo tëradi quoi yëfu seytaane la lam baaxul day yàq mbokk barki Serigne Touba Mbacke laam baaxul. dañ ko premier combat la woon. parcelle dix man sama koñ la terrain église. treize ma daan ko. sin waaw ma jàpp ko fët fët daan ko dem ñibbi. inte treize la waaw Mor càq-càq laa njëkk a bëreel. Eh, sin Modou ñàkk moo gën a ñëpp. nga yëg lan bi nga daanee Mor càq-càq di champion nag daan. non bi ma bëreeg Mor càq-càq ba daan ko dama ne bëre stade dafa yomb. loolu 2000 lan la. loolu 2013 la yaakaar naa xam dama ko daan ma li dafa yomb quoi lamb ji dafa gawa jeex prib ni rek mu jeex ni ak ni nga ko préparé yëpp sonn si. nga joge fa succès bi ñew nak mamor non non man gaw ay succès. moy man mbapat sax li def def moko ci si arène. bi nga joge ci Mor Cagcag. mu bëree si Mor Cagcag ma beure gu mu daan ma. gor fit bu grand. grand mbolo daanan ba. mu duma ma daan ma barki yalla bobu la sama suuf ba ni mu daan la nga ñëw nag di xam làmb ndànk xam na làmb daan ak daan la du affaire fugg quoi. waaw non non làmb mooy loolu da ngay ñëw tey juum ñu daan la suba nga ñëw respecté adversaire bi daan ko léegi boo demee ba xam loolu lépp lépp lépp après yow da nga chaque jour da ngay respecté boo bëggee am ndam boo ko da lay daan ndax joxoo ko lekk joxoo ko mu naan danga nga na ànd ak say mbokk moom tamit mu ñëw ànd ak ay mbokkam. sa premier combat ñaata nga fayee ko. 100000. ñu avance la 50 000. waay sa waay 50 sax. sa jeexul si jour bi. lu waral loolu ko joxe dama ko maye dama gaal laa ko tas. man damay liggéey man sama dibiteri laa yor di job man buuse laa comprendre nga. xam naa ko bëgg mu nekk sama deret rek mais man damay fayeeku damay am xaalis damay liggéey bu lamb tëjee damay liggéey bu lamb ibee nag xam nga. mbër a am métier. non mbër da ngay am métier. man dama ci làmb ji rek wóorul de. jaa ngi yàqu na. làmb ji lu na man. lu ko yàq suba laay bëre. dinaa ci ñëw bu daru. waaw bënt na la daal moom amul sens. ba ma jógee ci góor fi foo foo dal. ma jógee ci góor fi gannaaw mbooloo kii laa dal birisili bu écrir sumba jun. ndaanaan bu mag ba. ma jàpp ko duma ko daan ko. da meroon. non waaw ndax boobu si defet laa jógee. déggoo ma na la ba ma daanoo boobu laa gëj a daanu si làmb. ñu jàpp yaakaar naa moo ko tëggoon de Mor mbaay xaw ma maam Mor Mbaye xaw ma genre yooyu ñoo ko tëggoon après ma am doomu nomba bu fóode du subaa ma bol indi ko xama dima xoxal ci bir lamb ji. xoxal moy lan manam fuma tourner rek ñu japp ma rek di jaay affaire bande rek xama mhm. di nangu samay gàllaaj ak lepp moy lolu barki Serigne Touba ma japp ko duma ko dumay metti xama am ci mom ndam. ñu joxaan ma ki lañ ma jox après nak ma perdre ko par avertissement. xale bu ndan ndanan ba boy war boy war mu bëri loolu lu métti. waaw mu bëri loo ma waaw jour boobu dama bëri ba waaj a wàcc si. Aline Gueye ko tëggoon loo ba nga mënatoo kay. ba ma bare ba bàyyi ba avec ba temps bi jeex ñu yëkkati loxoom. comprendre nga. wala daan daan jàpp ma daan ma. daf ma décision arbitre moom lañ jox victoire man ñaar defet laa am di. non boobu pareewu ma ko carrément quoi joxuma combat bi dëgg. comprendre nga mais daanu ma par avertissement la ma daanee. waaw ma daan ma mënu daan. Boy Waar damaa mën a daan. nga jóge ci Boy Waar nag daal di bàyyi bëre toog 4 ans bëre woo. ba théâtre ah, deux ans rek toog ay ay film rek laa toog di see théâtre xam nga nekk sa business. affaire yi bu làmb ji doxul da ngay xool leneen man wéeruma si làmb kase de. nga ci Boy Jules nag amoon combat yaa ngi Sidi maa ngi Sidi Diamaguène combat ba baaxul woon. daa daw non ma fi daa moo la jàngal bëre. si fi daa jegante. te li ma am mais nangu woon ba ko ñoom Sidi biir. non dafa jege jàmm nga daa jóge ci defet non xam nga mbër ay mbër bu ñu nekkee nii si ko gox nii waruñoo bëri seen biir daal. bokk leen écurie amul ay relation. non ñoo bokkoon écurie si jàmm nga fii lañ daan taxaw maa di waxtaan lu yàgg bu ñu dajee stade dañuy daw songante bëre. toog waruma laaj quoi si ay lamb yi. lamb ndeysaan day yàq rek lamb mooy loolu affaire clan moo baaxul diggante bi dafa jegante. mais yow nangu woon nga combat bi. waaye nangu woon naa ko ko xam nga Pape sama mooy ki may sees dafa fit dem ñëw fekk mu jël combat bi. munu ma ko da nga wax ne dafa jóge ci defet doo bëreeg moom. non non. yaa ko wax. déedéet xam la la loolu sax jaruñu si sori ndax combat bi yàqu na te xam nga jaruñu si sori dañ bàyyi mu sedd rek. léegi jaruñu sori nga ñëwaat amaat combat xale bu xale bu daaru cubb bi ndaanaan bu mag oh, moo daje woon ak Bulle de Serre ne ma maam Mor bu nu bëree bu nu wëree woon rek ma weer ko. non pata nga de. gars yi loolu la ñuy wax. gars yi loolu la ñuy wax ñu dem ba ne suba la cin dem bay nar a neex. waaw ñu ne ba ñu dem ba ne suba la ñu pare fépp maak samay mbokk ñu pare ko Ousseynou ak Assane ñëpp ñoom pël jàpp si ñoom Sidi Mbaye ñoom Jelaani gaa yi jàpp si combat bi ñu dem fu ne fe financé suñu xaalis si làmb ji. du ca dal. coronavirus bi ñëw xam nga yàq lépp. mais amoon nga combat waroon nga gaynde nag. mais kooku pare combat bañ ne suba la xam nga ne kooku pare nga. mais Paul bu daaru. Paul bu daaru dañ koy jàppee comme yeneen adversaire yi rek ba mu fa amee booy luñ ma wax. bokkul kii pël bu daaru. ba ñu ma fi amee lengs luñ ma wax ba ma fi amee góor kumba luñ ma wax comme dañ koy jàppee comme yeneen adversaire rek góor la ñuy góor mu nekk suñu naataangoo mën a bëre torop ñu koy nuyu au passage. nee na woon mu weer la. ñu jox ko cër ñun dañoo jàng bëre bi ñu tollee ba A A dañ jàngee bëre A B C D E F G H I J K noonu bëre noonu lañ ko jàngee tëbuñu rek dugg si bëre. mais nee na bu ngeen bëri woon mu weer la. si pël bu daaru boobu ba léegi mooy wax. eggaguñ bu arbitre génnee suñ diggante ne par mu xam du jàmbaar loolu laa ko waxoon sa Lutte TV nee naa ko bu génnee suñ. SDTV la fii SDTV la fee Lutte TV laa ko wax ma ne ko bu arbitre ne par mu xam ne moom du jàmbaar. waxaat nga ko fii waxaat waxaat nga ko fii waxaat ko fii. non ñu lay seetal. non doo wax coronavirus moo fi nekk instant yii. yàgg yàgg di ngeen bu fi jógee corona bi bu fi jógee ñu xam lépp dëgg la ñun pare nañ fépp. yàgg yàgg moom bëre rek la ñuy jël dem bëre ji. reer julli la ak julli reer taxul reer mucc. waaye yow paak xar bu jëm daral seeraas dañ yàgg yàgg day dee. kon pël bu daaru. ñu dañ lay wékk fee gisoo ñaata xar laa fa ne dibiteri ba. Eh, xar yi. ah. mu ndaw. waaye pël mu daaru daa metti pël mu daaru diisul matul cent trente kilos ñun ay ama ndaw la ñuy kontaagal ah ay buba fit ay kara doole xam nga ay champion la ñuy bëral ay daaw da baakari ñoo ñëpp ay champion ñoo fi. kara doole sama doomu nday la bëgg moom ma bëgg ko mu amee combat dem këram toog. mu jox jabaram depanse bu bëri ñu toog si. moo la yoroon combat bi këram nga yàgg na maa yor di ma jàppale. barke Serigne Ba man maa wu ma dara suñu kër. mais pour nga am récupération bu doy il faut nga génn sa gaale dem foo xam te ne kenn xamula nga toog fa. boo bëggee na ñëw récupérer dallu nice boo amee combat da ngay déplacé wu dem feneen foo xam ne kenn xamula nga dem entraînement ñëw dallu mais boo toppee gars yi nii rek xam nga après doo mën nekk si jaamu quoi man ma am combat bàyyi fi booy ñoom Siraat ak Moussa. ñu nekk place ak man la ko yàpp waaw gis nga fii loolu moo fi am quoi. belle mooy sa référence. man. yow man Balla Gaye laay roy si làmb mais Lac Rose moy sama mbeur dégg nga ma iska ñaar ñu nga wax day ndaanaan la. Balla Gaye mooy moom man man ba la gay mako bëgg sama xol man ba la gay mais Lac Rose beure Lac Rose man mom lay beure le retour Lac Rose dafa le retour de Lac Rose retour bo boo don wax fan la wara a signé non la Rose ñukoy ñaanal jamm rek ak salam donc wér Serigne Touba pour mu gëna mëna am jamm ko talibé la té xol bé rafet man dafa ma mësa défal lo xamanténi ni ne Serigne Touba ba bamay may dee du faté ko défal lu baax nga wax ko. mom ci bopam la Rose Modou mbay invité ñu radioom FM Sénégal. ñu dem fa ba paré xif Modou mbay wax loñu ba ñu xiif. ñu wàcc dajeeg Lac mu ci restaurant yalla bobu mak usu ak Petit Tigre mbër de ku koy jox lek rek. bàyyi lak lo jox ñu ñu lek bay ba yobale affaire yi bay ba pare mu yëkkati 20000 jox ñu lañu pass len digënté bi nga xamne ne fanweer moo koy pass wala 200 cent. xam nga lu rafet yoy je sun noble yoy ñu koy bëgg di ko ñaanal mu delu ci waat dafa bok ci lamb affaire bobu dafa ma marqué trop barki yàlla feebaram bi ni xam nga ñu koy ñaanal yalla bu mu ko dalati si àddunaam mu am mu ñew jëlat place am ci lamb lak ros ku ko yeb zanum bi mo tax nga yeb ko. barki mu laaj yëkkani si yor na est-ce xaru ñoo ñep duñ jël lak ros ñoo lak ros mo leen mën barki Serigne Bamba. laaj Malick Niang ku koy yeb laa wax si zone bi moo tax nga yeb ko. Lac Rose jàmbaar ji jàmbaar dëgg ngoog man su at bi nee par man Lac laa jël teg ko bëre. sa taag sa koñ. sa gañ. ay doon paasañ. xam suñu papa yi doon supporté Mbaye Gueye ak Moustapha Gueye suñu yaay xam nga bëggoon Fass. yàlla def ñu tamit ñu judoo faas fii Fass Mbaaw xama bëgg làmb nekk école de lutte les Tigres Mbaye yor ñu di ñu tàggat loolu rek ndam la. xam nga ñun bu ñuy bëree xam nga. kàddu bu mujj bi. man man may gërëm sant sama ñi may jàppale si. santal gërëm di bëggee waa mafia Brescia bi yëpp. ñoom Moussa ñoo ma jox dàll yi may entraînement wee ak bébé Faa di leen wax sama iPhone bi ñëwagul ba léegi Moussa yi Maodo Ba France di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax ah ak Gara Moussal Espagne Khalifa Espagne borom. Australie ak Assane Fall di leen nuyu ñaari baay Fall yooyu noonu xam nga di nuyu Vémas Garga di nuyu waa Garga yëpp di nuyu Vémas bu baax ku bëgg saak bu baax wala daal demal si moom. Aliou Thiam ñoo ngi koy bégee bu baax Aliou Thiam borom asalem ak waa Sopp Dabaax yëpp xam nga équipe mafia bu nekk fii nii waa Sopp Dabaax xam nga ak waa hôpital beeg gaa yëpp ñoom Jelaani Ousseynou ak Assane grand pël sama grand la moo ngi nii xam nga lu ma namm dara barke Serigne Bamba. lu ma namm grand pël ne ma booy na ko dal fu ma bëgg dem dëkk bu ma bëgg a dem si àll mu taal trop ñëw ñu dem. wur na yàlla Amet loo sama mag xam nga ma koy nuyu bu baax ak Maas Njaga xam nga Aminta Lo Soda xam nga di nuyu géwal yëpp. Omar Ndour fàttewu ma ko ak Omar Bambara <laughs> Omar Ndour fàttewu ma Omar Bambara Galas Mbaye sama gaayen ak ñoom Mbacke Cubu ñoom Alaaji Mbay xam nga ak sama booy nekk si dibiteri bi nii xam waa Seken ak waa Caca ñoom Caca ak ñoom Pape ñoom Maodo waa Bango yeeg waa yaaw yëpp gars yi maa leen bëggee wër na sëriñ Touba Mbacke di bëggee waa Fass Mbao di wax Fass Mbao xam nga dafa xat quoi bëri nañ nekk benn ñu suudewu xam nga mbooloo mooy doole ñun du yàgg bañ bëri suñu biir nañ bàyyi clan yi ñuy dund fii nii ñu def comme yeneen écuries yi ni ñuy def nekk benn sëriñ Serigne Touba Mbacke kenn mënuñu te fii ay champion rek a fi nekk ñu yeneen te jàmm gaañ barki Serigne Bamba billahi wallahi taala ñu nek ci jamm dal barki yalla lo la gis di nuy biran nya jolof jolof yi mënu maa wax ba pare té duma len tuddu tudd ma défal dafa rëy man di nuy wa jolof yépp jolof jolof yi barki Serigne Touba mbaka Birane sama ndijay malik ñang ah ak Baba Ndiaye transistor wurna na karim di nuyu ma wa Seras di nuyu sama mbokk yépp ko lim da ngay juum ñom jibi ñom Anta maget Sena xama di nuyu ñep wurna na karim di bege ñep di wax xama mbeus le saval ki tire la charrette ne recule jamais kindeng kandang bu xaye nebna wurna wër bam sëriñ bamb di nuyu mama nokos mama borom cieb bi ak xama ak mama binda sama jarbaat yëpp maa leen bëggee xale bu ndaw di sama Laay Sarr day jàppale sama yaay si liggéey bi sama yaay man baana baana la Laay sar moo koy jàppale sama jarbaat la Papa sedat, xam nga gaay yop ñom mo binta ak Kole ma ngi nuy Kole bu baax ak Papa gay sama jarbaat moy lolu nek leen si jàmm rek wóor na karim khadim anta moy lolu dal affaire yi moy lolu ñu ñëpp ñoo far on est ensemble xatiendo dorondo barki yàlla buma kuma ku rek landing mafia ruby, landing duma ko duma ko lim dama doomu nday la landing mafia Doro bi li garaawul fas Mbao la rek xamuñu yi. fas mbaw boy da ngay waw xamuñu yi landing mafia Doro bi landing ma lay bëggee lu bari di la wax xama fi nga japp jappal barki Serigne Bamba man kase yow kase boma ma ma dem stade sax suma ma damay daan ngir yow. barki Serigne Bamba bëgg nga ma ba fu bëgg yam du nuyu pap Sané ak jabaram di nuyu jara jaata ak ak. mel crépin barki dembu la fi ñew fi ni kër gi Krépin barki Serigne Bamba ah, déggee bu baax a baax a baax wur na arxuraan moom may jàppale Krépin jaata ak Youssoufa Badji Krépin Diatta Youssoufa Badji maa leen di béggee lu bëree bëree bëri bëri du nuy Pape Sané ak jabaram du nuy waa pari foot bi yëpp di ko commencé si Chris ay ñoom yaat ay ñoom Fadel di nuy ñëpp di leen béggee di leen nuy madame Margot madame Margo ak baay Doudou maa leen nuyu bu baax a baax a baax a baax wër na arxuraanu karim ñëpp nekk si jaam ku ma fàtte rek xam nga damaa juum quoi wër na sëriñ ba Abdou Ndiaye Baye Fall. tabaski bi ku bëgg sol jasineer bu baax demal si Abdou Ndiaye Baye Fall ku bëgg sol dàll bu baax ak saak demal si Vémas mu jaay la dàll ak saak. mais jasineer laa la wax bu baax dëgg qualité demal si Abdou Ndiaye Baye Fall. amal jaamu Abdou Ndiaye Baye Fall. loolu demee yaat ma ci am tey Fass Mbao la ñu ñëwoon fekk si fii benn xale benn ndaanaan Mame Mor wax na ci làmb dafa am làmb dafa am ci moom yaakaar moom avenir ñi ko mu àggale ak jàmm ah. di sant Pape Demba ma ngay Ndour di sant sama grand grand Lamine Bara borom alsanti noonu la demee rendez-vous incha ci yeneen mbër